monsieur le président de la république son excellence ñu ngi lay nuyu di nuyu les membre du gouvernement rawatina ministre bi nga xam ne moom moo jiite lii di monsieur Mansour Faye nuyu tamit le gouverneur de la région de Dakar nuyu les préfets de Guédiawaye et de Pikine nuyu les sous-préfets nuyu les honorables députés les conseillers di Conseil économique, les membres du Haut Conseil, mairie, adjoint mairie, nuyu tamit le directeur du CETUD et de l'AGEROUTE nuyu suñu partenaire yi waral li nuyu waa Géejawaay mag ak ndaw ku ci nekk ndomba tànk bi nga am imam les clergés les délégués de quartier balaa maa tàmbali monsieur le président de la république ci turu Géejawaay gépp ñu sant la gërëm la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 du ñàkk nag balaa maa daaneel monsieur le président de la république son excellence doléance ndaw yi mooy wàllum xëy mi lu BRT gën leen a yokk ngir ñu am liggéey ci lii ndax mbir mi fii la jaar nag ñu jël ñu sant ñëpp gërëm ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammad